la ilaha illallah la ilaha illallah auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk julli mbokk taalibe ñu ngi nuyu baax di leen ziar waaye jur ñooy ziar yi Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaan suñu borom di la ko fi yàggal tamaan ko fi wér waaye noonu lañ ko ñaanal la muritam bu mag bi Serigne Oumy Fall mu di mbanda suñu borom di la ko fi yàggal tamaan ko fi wér waaye di siyaare suñu Abdou Rokhaya Fall ibnu Cheikh Namar Talla Fall suñu doom jëlee ko yaate loolu tam ànd ak yéen waaye di siyaare suñu bunt ci di Serigne Bada Fall mu Cheikh Abdou Bessou suñu doom jëlee ko yaate loolu tam ànd ak yéen waaye di ko jaare ci jëwri nañ Serigne Cheikh Mor mu Cheikh Bessou ginnaaw ba ñu nuyoo te siyaare leen di jaajëfal baax a baax yéen ñu topp ci sud Lamp Fall Touba ñu mel ni ba nagane ci mbaaru métal yi waaye ñu fekk fi suñu bàyyi di suñu sëriñ di suñu lépp di bàyyi asan ndaw bokk ci ñi nga xamante ni nii jëwriñ yi bokk ci liggéey bi la bi nga xam ne mooy suraay liggéey bi nee na bàyyi asan la la fekk ci mbaaru mitaali yi eh, ñu bëggoon rek ab soññee liggéey bi soññee boo xamante ni dana gën a am solo ba murid yi xam ne que liggéey bi moom sëriñ bi moom liggéey bi rek moo ko ñor bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi leen di fay ab nuyoo te di leen ko eh, delloowaat ab nuyoo ñaanal sëriñ Amdi Modou Mbenda Fall mu yàgg fi loolu te wër liggéey bi nag suñ Cheikh Jëmb moo ko tàmbali woon moom sëriñ Modou Sa Fall buñ fi jógee yàlla sama borom ay leeram buñ fi jógee nag la sëriñ Amdi Modou Mbenda jor liggéey ci moom léegi nag fi ne dañoo toll ci ñu lañ fi defoon ñetti bâtiment yi ñu fi defoon ak juróom benn mbaar ko àggale ba noppi su ñu ngi ci finition yi ak carrelage beeg yooyu mbaar mi ma ne mooy ministre métalli bi ñu jóge njaaréen ay seexi maam Seex Ibra Faal lañ muy waa ko sëñ Mayel Ñang sëñ am ni Mayel Ñang bàyyi fi ak njabootam ñoom ñoo nekk fi ci mbaar mi yor giri yi ak porte yi ak fenêtre yeeg yëpp ñoom ñoo ko doon liggéey mbooleem weñ boo fi rek waa ko sëñ indi Mayel Ñang ñoo ko liggéey te ñoom ci seexi maam Seex Ibra yi la la lañu bokk te amul benn dërëm boo xam ne jox leen dañoo jënd matériel bi rek indi leen ko ñu ñëw bàyyi seen itte yëpp ñëw na ci liggéey bi loolu ñu ko defee nag noonu la ko seex yëpp defee ñu nekk ci liggéey bi ngir bëgg li sëriñ bi bëgg mu am ko na mu ko bëggee ndax lépp lu sëriñ bi bëgg moom taali bi rek koy def kon moo tax ñu ñëpp ñu bokk yéene bokk pas-pas ñëw ci liggéey bi di dóorandoo di xàccandoo di dóorandoo ndax bëgg rek sëriñ bi am ndam fi ne ñu ngi ñu ngi karle karle ñaari mbaar yi ba mu noppi li des mooy fi jàngalekat yi ne moom lañ karle gi tey xëy nañ ci yeneen mbaar yi di ko karle su bâtiment bi noppee dañoo ne ci finition waaye bu noppee dañuy daal di jënd dañuy daal di carrelé carrelé bâtiment bitti bi ak biir bi incha allah ñi woo bokk teel bi yëpp nag ndax liggéeyal suñ tuwaa moom ku ku ci def sa dërëm ñàkk ko tey ku bëgg a yokk ku ne fexeel bu ndigal suñ tuwaa loo dégg nga fexe ba jël sa wërsëg dugal ko ci ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp xéewal màkk soxna jaar gi ñu jëm yàlla yóbbu ñu ci jàmm jëlu choix ñu ci jàmm te luñ ci sàkku yàlla ñu ko suñu borom defal maa leen di siyaare baax a baax. jërëjëf ñu àndoon nag suñu Baye Assane Ndao di Baye Assane Ndao moom Baye Cheikh Ndao mu mel ni Baye Assane comme ni nga ko waxee ñu ngi ci eh, eh, jeexante liggéey bi ndax bâtiment yi nga xam ne moo moom bëgg mu noppi mu door a def leneen kon day mel ni kan kon loolu dana jar nga gën a soññ murit yi ñu xam ne que sëriñ bi moom liggéey bi doo nga la am te bala moo am li ni a muy wàllu finition kon foofu itam day laaj ab soññe bu baax a baax ngir murid bi xam ni kat liggéey fi mu toll dafa laaj doole laaj xaalis laaj laaj ay personnel bu koy def. waaw maanaam kii moom li fi ne du liggéeyub million du liggéeyub ay million centaine de million million moo fii dem ndax miir bi rek lim jër mat na milliard miir bi rek lim jër mat na milliard rawatina nag bâtiment yi kon nag buñ ko wax finition da nga wax ay force da nga wax peinture da nga wax karo da wax itam sanitaire yi dem si wanag yi kon ngi murid yëpp lu ci nit am te man ko def ci ngir jëmmi Sëñ Tuubaa nga indi ko jox ko Sëñ Andi Moodu Mbenda mu defal la ko ci liggéey bi lu waay def rek lu def ko ñun amuñu amuñu guddi ñun ngi li bi bëgg rek mu am insha Allah rabbi jërëjëf Baye Assane kon ñoo ko déggoon mu mel li bi bëgg rek faaw dana am kon nag murid yi war nañoo gën a góorgóorlu bu baax a baax ci liggéey bi te xam ne sëriñ bi moom lépp lu mu am rek liggéey bi yëpp moo ko gënal mu mel ni tamit comme ni ñu ko waxee misaal yi ñu ngi fi mu ngi fi ñu ngi fi carreleur waaye carreleur yi itam day mel ni personnel carreleur bi manqué na loolu tam naka nga ci mën a soññee ci personnel carreleur yi ndax ñu mën cee jàpp bu a baax. waaw kay léegi carreleur yi itam manqué na am nañu fi ne am na daayira bu ñëw tey fan yee am na daayira léegi nag dañ ne woon ñoom nañ ñu may ba bâtiment bi noppi bu noppee ñu waat leen ah, ñu waat carreleurs yi am nañu fi ñëw di wane seen bopp ne bu ëllëgee bu ñuy carrelewaat nañ leen woo ay carreleurs lañ ay daayira lañ jiite tey ji am nañu fi ñëw tey ji daayira am na daayira boo xam ne tey ji ñooy carrelé mbaar mais tey léegi nag bâtiment bi bu noppee ci la ñuy woo yeneen daayira yi ñoom itam ñu carrelé bâtiment bi ñu képp koo xam ne carreleur nga rek wala ngay maçon ndax li ñu gën a ittoo mooy maçon ak ak électricien ndax foofu lañ toll fi mu ne nii électricien ak carreleur ak maçon foofu lañ ñooñu lañ gën a gën a gën a soxla nag kon nag ñu ngi soññi murid yëpp foo am murid nee te dégg sama kàddu bi sëñ am ni moo dumbee ne ñu ngi lay woo ci liggéeyub sëñ Tuubaa bii ndax da koo bëgg a jébal sëñ Tuubaa waaw jërëjëf Baye mu mel ni eh, ku wax liggéey wax matériel eh, lan ngay soññee ci wàllu matériel bi nga xam ne moom la ndax lu ci mel ni carreleur yi dafa mel ni aju ki nga xam ne mooy jiite carreleur yi dafa wax ni lu mel ni machine soxla nañ ko waaye lu mel ni ay gants soxla nañ ko kon day mel ni matériel bi nga xam ñoom la ñu liggéey am na lu ñu ci soxla loolu tam ban soññee nga ji def waaw lu waay am rek lu waay am rek fii di ko fi rek boo dikkee daan la ko defal ci liggéey bi lu waay am rek boo indi boo ko ñëwee rek daan la ko defal ci liggéey bi am na ñu fi ne ñoo xam ne duñ fi jóge benn yoon ñu ngi fi saa boo ñëwee rek bu soobu yàlla da daan loo fi indi rek lu fa indi rek daan la ko defal ci ci ci liggéey muy muy muy karo muy ay gants lu ay lu ci waay indi rek bu soobee yàlla danañ la ko defal ci liggéey bi incha allahu rabbi jërëjëf kon mbokk yi ñu àndoon ak suñu bàyyi Assane Ndaw moom bàyyi Cheikh Ndaw mu doon eh, laabire ci liggéey bi nga xamante ni am Amdi Fall mu dumbe ne mi ngi koy liggéeye ni mu ko waxee dégg ngeen ko bâtiment yi nga xam ne moo fi taxaw moom la sëriñ bi bëgg mu yegg ñu door a sumbaat leneen kon mbokki jil bi mbokki taalibe bi fépp fooy mën a nekk tay gën dégg suñu kàddu mo xam muy ci biir mo xam muy ci bitim réew nañu xam ne liggéey bi kat tollu ñu tollu ci walu finition tan ko sëriñ bi waxee mille bi rek comme lek na milliard kon yaakar na sagam mille bi rek mo lek milliard kon yaakar na bâtiment yi ci biir biir biir mur bi kon mu tawax kon nak mur yi nga xam ni ñu seetaan ta yaakar sétu bi rek fepp way mëna nekk am néew mu bari nga nga jàppe ko ci liggéey bi ndax liggéey la bo xamni ni ku ci feeñ na bu kon suñ sar lay itam ñu leen di wo comme ni ko Baye Assane waxee fu waaye mën a te képp ku ñëw itam bépp ouvrier boo xam yaa ngi ñëw soo mënee indaale sa matériel itam moo gën ndax tey jii fee ci menuisier yi lañ gis na fa trop kon nag xam ne yaa ngi ñëw a indaale sa matériel kon euh, na nga ñëw kon mooy li nga xamante ne nii mooy waxtaan wi fekkoon ak suñu Baye Assane liggéey ni nii mooy mbaar métal yi ni ko waxee kenn ci magi Cheikh Ibrahima yi nga xamante ni ku kenn ci mag Cheikh Ibrahima yi ak njabootam ñoo seere wàllu liggéey bi nga xamante ni mooy wàllu liggéey métallique bi ba dem nañ baanaka ñu cëppaandaw bi kon seen euh, suddu Lamp Fall Leeral Touba àndoon ak suñu Sawa Sarr ci caméraman ci caméra bi waaye ndongole maam jërëjëf ci kàddu gi ñu ñëwoon fii ci liggéey bi gën leen euh, toppal liggéey suñu toll jërë ngeen jëf la ilaha illallah